xibaari biti réew yi soxna maam Fatou Kébé. dañ koy dooree ak ki nga xam ne moo di Algérie fukkeelu àjjuma boo xam ne ña nga doon amal seeni ñaxtu nag ca réew ma gannaaw nag boobaak léegi ay jafe-jafe yu doon amal nag ca réew ma doon sàkku ci njiit réew mu mu dem gannaaw nag seeni bëgg-bëgg yooyu nag boo antoo terewul nag ña ngay wéyal xeex ba ba tey di dajale mbooloo mu bëri nag di sàkku nag seeni sàkku te ñu indiwaat ay coppite ca réew ma temb fi nga xam ne moo di Afrique du Sud dëkk yu ndaw ndawaan ya fa nekk nag bëri taw bu bëri bu ànd ngelaw moo fa yàq lu bëree bëri ci lu toll ci juróom-ñaar fukki nit yu fa ñàkk seen bakkan nag loolee nag koo xam ne dund na nag boobee musiba moo ñu ci andil ay leeral ma nga ñuy xamal ne nag doomam sax ñàkk na ci bakkanam ak waaye tamit bëri na kër yu fa suro ñu nekk ca kujje ga nag dem nañ ba fa mbir yoo xewe nag ñaawlu lool ñàkk waajal nguur ñaan ñu taxawu leen ñu daaneelu nga xam ne moo di ab boo xam ne ña ngi ko doon amal nag ñuy sàkku nag ñu indiwaat fa beneen gouvernement nekk nag manifestation boo xam ne nag ñu nekk ca ku jëga ñoo ko jiitee askan wa nag askan leen ca waaye bëri na nag askan wa di bàyyeekoo fu ne nag di leen ci wuy si ca boobee woote te boobale woote nag nee nañ nag militaire ñoom ñoo war a bàyyeek nguur ga nga xam ne ñoo di ji nag ña nga xam ne mbir yee dinañ ko wéyal ba baabaa ñuy am la ñu bëgg nag ndax jàpp nañ ne loolee nag moo fee mooy indi ay coppite ci réew mooy jërë ngeen jëf loolu lañ leen indi indiloon ci xibaar yi biti réew yi